ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant euh, communauté éducative bi nga xam ne moo nekk ci lycée bi moo ñëw pour euh, réceptionner ay dons yoo xam ne euh, mu ngi jóge ci pencum yoof muy imprimante bi ak livre yi waa doomu meeru yéen Mamadou Ciss moom moo ñu ko may ak euh, lii nga xam ne aussi mooy xale Yoff yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Europe ñoom ñoo ñu ko jox donc ci cérémonie boobu lañ nekk nii ñu bugg euh, d'abord dalal ki nga xam ne moom moo représenté pencum Yoff pour mu joxe kàddoom ci loolu waaye balaay loolu aussi comme dañu nekk ci kër jàmbur ñu jox borom kër gi aussi mu dalal ñëpp ci jàmm ak salaam. waaw jërëjëf merci comme ni mu ko waxee rek tey moom dañu am mbégte. Euh, de recevoir ci lycée euh, donc euh, l'association des parents d'élèves à waa ils ont pensé à l'école au lycée comme ils ont l'habitude de le faire chaque fois que nécessaire donc nous ngi leen di dalal jam de di ni au nom de toute l'équipe pédagogique les professeurs les élèves pour qui vous avez fait ça donc à mon nom propre en tant que proviseur euh, donc monsieur monsieur Diouf donc euh, euh, vous avez tenu promesse parce que vous étiez passé dans mon bureau donc nous avons échangé et vous nous avez donné votre votre votre votre votre votre vous avez montré votre volonté d'appuyer l'école à travers donc du matériel de reprographie. Voilà, donc euh, si aujourd'hui on reçoit ce, don-là, euh, on ne peut que s'en réjouir. donc, d'autant que ça vient à point nommé. Et il y a aussi des, livres de la part de l'association des parents d'élèves. Donc pour dire simplement que, d'une certaine manière, euh, l'école, le lycée a des partenaires, des partenaires sûrs qui chaque année donc, apportent quelque chose à l'école. Ah, euh, c'est pour améliorer les enseignements apprentissages et renforcer un peu ce, partenariat. Donc euh, je ne serai pas long, je voulais juste dire au nom de toute l'équipe pédagogique, au nom également du conseil de gestion qui est bien représenté ici, vous avez les professeurs, vous avez M. l'intendant, la comptable matière et, les professeurs de manière générale et les élèves pour qui vous avez fait ça. Donc nous manifestons notre, notre joie à recevoir ce matériel-là. Euh, qui, comme vous le voyez, vous le comprenez bien, c'est un besoin prioritaire que nous avons nous-mêmes exprimé. Et vous, vous avez tenu compte de cette expression de besoin-là et vous nous avez donné ce dont, on a besoin. Ça, c'est fondamental, c'est important. Et là aussi, euh, donc les manuels, véritablement pour l'enseignement des sciences et pour la lecture, voilà, qui concerne tous les niveaux. Donc on ne peut que s'en réjouir. Et je terminerai aussi par euh, saluer euh, l'engagement de l'association des parents d'élèves, donc, euh, qui nous accompagne. voilà, L'œuvre de construction commune de cette école-là, nous, nous, la partageons avec les parents d'élèves, avec les élèves et avec la communauté, voilà, que vous représentez bien. Donc, au nom de toute l'équipe pédagogique d'AL et du conseil de gestion, donc j'ai plaisir à euh, vous souhaiter la bienvenue, mais également à euh, recevoir ce matériel très important pour nous. je vous remercie. Merci. bu weesoo loolu aussi Nous euh, ngi saluer présence du gouvernement scolaire Nous avons ñu ngi le corps professoral bi ak surveillant Les plus grands xam nous ñu ngi yëngatu ci école bi ñoom ñëpp ñu ngi donc nous avons kàddu gi monsieur le président saltige Mamadou Mbeng bi nga xam ne moom moo fi teewal parents d'élèves yi merci Sidi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di dalal ñëpp di dalal waa pencum Yoff tey ji Amadou Camara Diène di seen président teewal leen fi ak Jibril Thiom ñoom ñëpp di ay jàngalekat nekk si Yoff pencum yoof nag ñu ñëpp ci bokk am nañ membre yu ne si biir Yoff am nañu ne biti Yoff ah tey nag ñoom ñoo ñëw indil benn don lycée Sembène Ousmane tekk si loxo proviseur ñu nangu ko ak parents d'élèves yi ñaanal leen yàlla jàppale leen parce que li ngeen def lu am solo la bi ngeen ko bëggee def consulter ngeen ñu nañu lan mooy besoin école bi ñu am ñaari proposition yu ngeen defoon man leen daal de préférence machine bi moo ñuy gënal ngeen ñëw waxtaanaat chef proviseur moom it mu wax waxaat ne kii moo koy gënal tey ngeen ñëw réaliser ko defe naa appareil bi bu caméra ñëwee dina wax densité bi ak li mu mën a yokkal école bi ci wàllu pédagogie ah lële ndëkk doomu livre bale sunu benn doom bu dëkk yeen defe naa bi mooy deuxième fois bi muy Mamadou Cissé di doom ci meeru yeen am na don bu mu fi andi ma ànd ak moom mu tekk si loxo madame Ndiaye mu jëlaat beneen don dolli si ne dafa bëgg a jàppale ay rakam yi jàng fi nee na yéen sori na waaye yéen ak Yoff benn si moom parce que communauté lébu moo tëddee noonu livre yi nag doomu yof yi nga xam ne ñu nga France di ja di liggéey foofu dafa daan seen doole dañu andi woon don bu yaatoo yootu si biir Yoff ci wàllu santé éducation sport ak yëpp ñu jëloon une partie jox ko lycée Sembène Ousmane jëlaat une partie jox ko bibliothèque Sembène Ousmane waaw ah, don boobu ñooñu ñoo ko joxe si turu Yoff ñeew fois yi nga xam ne ñu nga extérieur daan seen doole foofu ngeen ñaanal leen yàlla ñaan proviseur yow it ah yëg nañ ne ah ku bees nga waaye dafa mel ni yaa yaa njiglaay nga pour école bi yàlla nañ ko muurloo waaw ah, yii daal yàlla bu mu dakk yàlla chaque mois rek wala chaque quinze jours am partenaire bu jóge ci biti yoof wala yoof andi loo xam ne day dimbali école bi parce que école bi soxla nag vraiment sant professeurs yi ñaanal leen école bi xam nañ ne jafe-jafe yi bari na waaye ñu ngi def effort yu ne pour mu école bi am résultat yéen ñu ngi leen di jaay jëfal di leen ñaanal yàlla na yàlla bar gën a barkeel seen liggéey ñaanal tamit ñi nga xam ne ñooy kilifa école bi proviseur ak censeur ak intendant ñaanal sunu doom yi nga xam ne nag ñun ñëpp ñoo ñu fi dajale ñun ñëpp sunu doom yee ñu fi dajale pour rek suba ñu mën a nekk parmi les meilleurs élèves du Sénégal yàlla defal leen ñu am réussite bu ëllëgee ñu bokk si kilifa yi nga xam ne ñooy yilif Sénégal loolu lañ leen yéene loolu lañ leen di ñaanal en tant que waajur kon ñu ngi sant ñëpp. di ñaanal ñëpp ñaanal parents yi vraiment ñu ngi leen di ñaanal ñu leen di sant yéen yal leen yàlla taxaw parce que bénévolat dafa metti waaw li ñëpp bokk dama wax ne ki si gën a sonn moo gën ñëpp li ñëpp bokk te doo fa xaar mille francs kase gën a sonn si population bi kookoo gën ñëpp te loolu ngeen defal yoof yal leen yàlla dollee taxaw yàlla def si yoof jàmm defal ko sunuy kilifa muy famille maam limaamu defal ko képp ku takk bu tànk si yoof proviseur jërëjëf bi nga ñëwee yi xam nga ne si yoof dëkku cosaan nga ñëw dëkku diine nga ñëw li nga jëkk a def mooy dama bëgg a saafonte kilifa yoof yi te noonu la ko defee saafonte naag waa kër maam limaamu saafonte naag coutumier yi saafonte naag imaam ratib si APEX lañ mujjee barke Demba si xam ne mooy association bi nga xam ne mag ñi ñoo ko sosaloon yoof pour muy jàppale yoof si seen jafe kon yàlla na yàlla dolli ndimmal rafetlu nañ ko en tant que coutumier en tant que parent ñooy la wax ne loolu rafet la te yëg nañ loolu milieu lébu lañ ne communauté bu ne ak ak ak valeur yi mu yenoog yi mu bëgg waaye boo demee di nga yëg ne ñu ngi lay wax ne nun de ku ñu yëg rek ñu yëg la te yëg nga ñu incha allah dinañ taxaw sawet jàppale la yàlla na yàlla dolli ndam fii ñuy waajal dem yalla na yàlla antul yëpp ba ñu dem ci japp jam fofu di dox fi di dox waaw ñon yalla ñu yalla doli ndimbal Camara merci encore yow mom xam nañ ne ku sonna ci yof nga ñoo àndandoo ci affaire environnement àndandoo ci affaire développement àndandoo ci affaire éducation kon tay bo xëyaatee andil say rakali ak say jarwat da ngay wax ne la nga doon wax si biir biiru yof sa biiru kilifa dëgg la si yow yaag ñi nga àndal yàlla na yàlla dolli ndimbal allahuma salli ala sayyidina muhammad wa salam ngeen baal ñu wax asalaamaaleykum. waaw comme ni ñu ko waxee rek euh, am na ñu fi teew balaa ñoo jox euh, kilifa gi nga xam ne moom moo andi euh, lii ni ci lycée bi ñu jox parole gouvernement scolaire bi seen benn représentant pour mu sànni kàddu ci mbir mi. De quelqu'un, déjà, je ne le connais pas, il ne nous connaît pas. Mais euh, il nous aide quand même pour avancer. Et nous, en tant qu'élèves, nous ferons de notre, de notre possible, tout notre possible pour qu'enfin, nous, nous, faisons partie du meilleure école quoi, du Sénégal, du monde, du monde entier. Nous remercions euh, monsieur, monsieur Kamaradien, Pentunioff, de nous avoir. et aussi les parents d'élèves, les professeurs et tous les, représentants de l'école de nous avoir soutenus, de croire en nous en même temps. Et nous, en tant qu'élèves, nous ferons de tout notre possible pour réussir. Inch'Allah. Euh, Jerejef, euh, wax bi pour

Platform la mu juddoo ci platform eh, Facebook dem si WhatsApp ay doomu yof ñu nekk yof ak ñu nekk biti yof nekk si di ci échanger si lo xamantene ni da fay amal njëriñ yof mo xam problème bu fi am la ñu war ko safara mo xam besoin bo xamantene amagu fi ñu war si taxaw pour mu am fi wala yeneen xet yo xamantene ni yof soxla nako ci côté yépp si côté ñu ben côté côté yépp la ñuy waxtane lépp loo xamante ne ni suñu ñaar dërëm moo si war a dem ñi ko yàlla mën loo participer si lépp loo xamante ni xalaat la aussi lu ñu war a xalaatal dëkk bi ñu xalaat si lépp loo xamante ne ni jóg tamit wax si dox ñu ñu defe ko noonu si suñu kattan donc loolu moo tax a jóg euh, association Pencum Yoff Yoff donc moo ñu moo ñor donc ñu ngi nekk si plateforme boobu di si échanger di si waxtaan si lépp loo xamante ne ni problème Yoff la ba ñu gisoon ne lycée Yoff bi

de ce fait seen jàng dina nekk jàng moo xamante ne bu mucc ayib lay doon donc lii participation Yoff la si li nga xamante ne moom mooy lycée Yoff donc nag machine bi naka la demee ah ban raam la et cetera damay bàyyi président moo doon jëflante ak ki ko doon jaay xam euh, capacité machine bi naka la demee que defee moom indi foofu ay ay leeral ñu ngi jéggalu ci kàddu yi bu baax a baax a baax. waaw donc euh, jërëjëf euh, monsieur Djibril Thiam ñu jox cadeau gi euh, monsieur Camara Diène nous présenté wu ensuite euh, wax ci cérémonie bi monsieur Diène. waaw alaikum wa rahmatullah euh, ñu ngi nuyu waa lycée Ousmane Sembène de Yoff comme nous ko Djibril Thion waxee commencé par le proviseur <coughs> remercie aussi tout son staff le corps professoral ak l'association des parents d'élèves seen seen bopp saltigi Mamadou Mbengue jiite leen.

donc euh, charge à nous pour nous redorer le blason de Yoff euh, éducation donc ce que nous avons fait, c'est ñu nous avons ñu une image bu positive ñu l'éducation. am <coughs> pour cela nous avons nous ñoo war Google euh, pour que nous ayons un am ay résultats probants comme nous l'avons dit, nous on est des professionnels d'éducation on est dans le milieu de l'éducation et on sait que présentement euh, pour qu'une école soit performante, il faut qu'il y ait un matériel de reprographie. On ne peut pas évoluer sans ce matériel-là. Euh, le sachant, nous avons tout fait pour essayer de, euh, de ratisser l'argent, hein, pour, dire à nos concitoyens que là où vous tirez, peut-être ce n'est pas la bonne direction, là où nous voulons que vous ayez, c'est euh, aller vers le sens, dans le sens euh, d'aider les établissements de Yoff à vraiment sortir, émerger. N'est-ce pas Et pour cela, euh, on a pensé à un matériel un peu qui soit adapté aux conditions maintenant. Le lycée de Yoff, on m'a dit que ça fait plus de 2000, 2000 élèves. 2000 élèves, si par exemple le sachant, maintenant les devoirs sont groupés, les compositions sont harmonisées, donc il va falloir avoir une machine qui ait une capacité maximale pour pouvoir tirer à temps. Sinon, euh, les enseignements apprenants vont partir. Maintenant, c'est pourquoi on a pensé à ça. Et euh, la machine que nous vous offrons, c'est une machine qui tire 51 copies à la minute. Donc, euh, c'est une machine multifonctionnelle, imprimante et photocopieuse, couleur et, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, nous, nous, nous croyons qu'avec cette machine-là, le lycée va pouvoir vraiment euh, en profiter pour gagner du temps. Parce qu'en ce moment, le monde, on est en, un moment où euh, c'est le gain de temps qui est euh, favorable à une éducation de, qualité. Donc, étant donné que le lycée aussi va déménager du côté de, de Tongor, il serait aussi difficile de, partager le matériel qui est là. Parce il faut penser au CM, il ne faut pas tout amener. Donc, eux, ils ont besoin encore du matériel. Donc, on a pensé à cela. C'est pourquoi on a, on a voulu vraiment participer en donnant ce, matériel de reprographie pour permettre au lycée de Yoff euh, d'être au rendez-vous, n'est-ce pas et vraiment, c'est que le début de, la collaboration, comme nous l'avons dit. Euh, nous œuvrons dans tous les secteurs, euh, mais plus particulièrement dans l'éducation et l'environnement. Et nous voulons vraiment qu'à partir de ce maintenant, que tous les projets que le lycée de Yoff, le lycée de saint va, va mener, qu'ils mettent à, contribution Pentium Yoff, comme ça, nous, nous, aussi, on, se fera un plaisir de vous accompagner dans l'exécution de ces tâches-là. Donc vraiment, c'est un honneur. Au nom de tout, de, tout euh, nous, sommes vraiment heureux euh, de vous offrir euh, cet outil pour, participer au, rayonnement du lycée de Yoff. Donc c'est en ces mots que je vais vous rendre la parole et vous remercier de votre accueil. Merci beaucoup.

mënuñoo def lépp te état bi tamit mënul def lépp donc ñi nga xamante ne ñu ngi si yoof ñu ngi leen lancé benn appel ñu ne groupe yi association yi ñëpp ñëpp ñu man ñu leen lancé appel comme ñu def pencum Yoff nu ñu def comme première promotion ñuy def ak ñeneen ak ñeneen li ñu def ñu leen lancé appel pour ñu ñëw jàppale lii sa yoof parce que ku xool élèves yi xam ne école bi man mënul leen dara te chaque chaque jour euh, performance yi élèves yi école bi def moo tax chaque jour élèves dañu dañu gën a bëri donc bu élève bu gën a bëri classe dañu gën a bëri matériel dañu war a gën di yokku donc foofu noonu bu fekkee ne dañ ne euh, kii euh, ñu ngi def résultat rek ñu bëgg a taxaw non après dañuy delluwaat ginnaaw donc comme ñu ngi def résultat dañu war a aller de l'avant aller de l'avant day ànd ak ay matériels yu mel ni yi nga xamante ne penc yooyu xalaat na ko pour andi ko donc man foofu laay foofu laay gën a wax di lancer suñu si si si ñii ne Yoff ak ñii ne bitim réew rek ñu ñëw jàppale euh, euh, lii sa Yoff bi merci je vous remercie. jërëjëf kon gis ngeen ko ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision Yoff TV. Euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant tey wax ne parents d'élèves bi ak lycée bi kontaan nañ ci lii te gis nañ sax ci biir discours bi loo xam ne ñun ñoo waroon dem ci ñoom mais nous ne nañ ñu ñuy tendre la main donc euh, dañ leen di jërëjëfal merci beaucoup pour la prochaine fois. Euh, comme ni mu ko c'est c'est le c'est l'intrant pédagogique majeur dans un établissement waaw donc lii moo pratiquement moo yore école tirage euh, donc tirage euh, tirage devoir tirage euh, support professeur professeur ils ne pourront pas bien faire le travail donc il y ngeen ñu comme aussi nous sommes dans une dynamique de déménagement du second cycle mm. voilà effectivement il nous faudra faire des arbitrages voilà entre le collège et le lycée voilà par exemple ne bu pas déménager le second cycle du lycée

et je crois que ça va euh, en principe ce mois-ci, ni madame dina wara dina parce que moi, chaque chaque fois dans mon bureau day m'explique maintenant. expliquer mel non photocopieuse bi panne réseau bi panne proviseur qu'est-ce qu'on fait voilà donc nous nous accompagnons, accompagner toute la communauté nous nous accompagner comme il faut je crois que si nous continuer non rek euh, résultat yi ñi am dina wess suñu en tout cas am nañ volonté